su ko defee nag sunu borom nee na ñi ko gëm ni ñu bëgg seen dund mel yépp melal na ko ko ba noppi nee na ñu jël ko rek moo ci des ñu jël ko rek nag moo ci des waaw ñu jël ko xàmme yitte muñ xàmme yitte muñ waaw xàmme yitte muñ ndax boo xàmmewul yitte du fa nekk bu fa yitte nekkee te muñ amul musibaam ba ma tax xàmme yitte muñ waaw ñu ni ko muñ ba ba ba fan mu ni ba ci ba ci ki la song ak fasu naaram ak jaaseem ba jaasi ja dalee ba foofu ba foofu waaw ba foofu ndax ki war a not jamono ki féeteeg yàlla not jamono yomb na ko daf koy bàyyi ak yàlla waaye ki ni yàlla la féeteel ba noppi xew-xew bi gën a tuuti ci jamono weddiloo ko yàlla kooku jadd na muñ te am na nag ñàkk ñàkk xàmme ak ñàkk yitte ak ñàkk muñ moo koy def am na ñoo xam ne lu leen dal weddi loo leen lu leen dal weddi loo leen waaw ak fekk lu la rawul nga di ko rëccu fekk lu la rawul rawula rawula ndax bakkan baa ngi fi waaw waaw fekk lu la rawul nga di ko rëccu rawula rawula ndax bakkan baa ngi fi rawula rawula ndax jom jaa ngi fi waaw rawula rawula ngir mbaaxu yàlla ngi fi waaw ah rawula ngir bakkan baa ngi fi ah rawula ngir jom jaa ngi fi rawula ngir mbaaku yàlla ngi fi waaw looy tawat nag ah rawula da góor gi daan na wax ni am jom xam joma ko gën mais bari na kuy waxu ci diggu ëtt ngàmb yetam naan waa këram jóg leen te la la ko tax di jóg lu jaru ko waaw dafa am jom mais xamul jom waaw ku xam jom da ngay nangoo muñ waaw te it ñaara fi nekk di la dimbale ci nangul gi nga nangul yàlla boo leen joxul seen cir doo dem moo di li ni pat waaw du wax mukk li ni pat du wax mukk te boo ko joxul ciram doo dem ak liy wax du noppi mukk te boo ko joxul ciram doo dem aha doo dégg baat mukk waaye boo ko joxul cëram doo dem jëf du noppi mukk waaw jëf dañu koy dégg waaw boo leen gëmee te gëm leen boo leen gëmee te gëm leen yooyu ñaar daa xam ne li yàlla wàcce ci yonent bi jamono mën na wéy di ci beese ba faw waaw aha nit dana tudd sax lépp ngir jublu ca aw nit te fekk sax mëtu ko waaye mët na ko waaw ne bu ñu nee l'islam ni progrès l'islam ni progrès dimbali aw nit a tax waaye denduñu waaw denduñu ndax progrès njaboot la ci l'islam waaye dimbali aw nit moo tax nit di ko tudd jamono ni mel waaw boo fekkee ni jàngal sa doom leneen te bëgguloo xeex ak moom xikma rek ngay mën a waxee ak moom waaw te comme moom progrès la gëm gëmul l'islam fokk nga ni ko l'islam ak progrès nii lañu dem waaye fekk kenn du leen dendale ndax progrès njaboot la ci l'islam na topp ci gannaawam rek kott kott yollu yollu waaw moo taxit nekk militant nekk militant nekk militant bu bu ñu ko tuddee dimbale aw nit a tax wante gëm yàlla nekk militant njaboot la ci moom kenn du leen dendale li la ëpp ba wann la li la ëpp ba wann la waaw bu ñu la dendaleek moom rek gaañ nañu la waaw li la ëpp ba wann la waaw te féeteeg yàlla moo wann militantisme bu mu man ci doon l'islam it moo woon na progrès bu mu mën ci doon njaboot la ci moom progrès njaboot la ci l'islam njaboot nag bu bañee tànkam damm dafay seet fu kilifaam jaar mu jaar waaw waaw lu ma ta bàyyi xel la waa tubaab yi dinañ ko waxal seen bopp ñoom ndax ka liggéeyali weñ ba génn ci oto génn ca avion dem ba ca weer wa ba mu dellu te mu xool jikkoom fekk fa jikkoom nekkoon jógu fa xam na ni am na lu mu sàggane ki jël weñ di tegle di di di rekle di indi chiffre def pexe ba dugg ca dem ba ca weer ba dellu ubbi jikkoom fekk fa jikkoom nekk dugg ko te man dama bëgg a añi ah bu ma yóbboo ni leen rek noonu la ah waaw ku bëgg a añi moom fokk mu neex deret تلو باطلا وزلوا صارما وقالوا صدقنا فقلنا ايه نعم moo tax ñu ni laa ak naam bu ci ne degré la am laa ak naam bu ci ne degré la am ki nga xam ni bu nee déet ci degré ba war la ko teg bu nee waaw ci degré ba war la ko teg in qulta fi l amri la aw qulta fihi naam fa xiiratu llahi fiina minka aw naam waaw kooku yonent bee ko moom waawam bala jib waawe asamaan jib ba noppi waaw déedéetam balaa jib déedéeti asamaan jib ba noppi bu ci ne nag jamono du ko dindi waaw bu ci ne jamono du ko dindi mukk pexe amul ci ne jamono du ko dindi pexe amul saa moo tax bul doxal yàlla soxla mukk mukk tànk wóoluwuloo sa bopp waaw moo ci gën a gàtt ndax itam booy doxal yàlla soxla tànk boo jéggi daa gis ku ko weddi te ëpp la doole moo tax boo wóoluwul sa bopp bu ko doxal soxla mu ah layal ku ku wóolu boppam layam dafay gàtt in in kuntum in kuntum fi shakkin min diini eh fala abudu alladina taabuduna min dunillah ah mu jeex takk xamuloo ni lay bu baree rek borom dafa wóoluwul bopp waaw waaye ki wóolu boppam layam dóopp ñaari baat bi tariqa yi soog a bëgg samp dëgg dëgg ci réew mi te am ñu ci d'accord ñu tariqa dafay teqali jullit yi ba commencé di ko dàq te tariqa jullit bu mu teqaleeg morom ma booba dafa fekk loola nekk ca ñoom waaye nekkul ca tariqa yi waaw lu mat a xàmme la bare na ku waaxu romb la naan man duma foye sama tariqa te bakkanam lay wax waaw waaye kay liggéeyal tariqa ba ma nga feneen waaw kenn ci mbokk talibe yi mas na ko wax Cheikh Alhaj Malik waaw dama te it ñaare gore ci jamono baaxul kilifa gu dañul kumpa bu ko di wax lu waa mbedd mi wax mhm ndax amul jotam mhm mhm kilifa gu dañul kumpa te amul jot boo ko bëggee bu ko di wax li waa mbedd mi wax waaw yaa ngi koy gaañ te yëguloo ko waaw waaw kenn ci kilifa yi ñëw ci Cheikh Al Hadj ko ah diw de man li ma wax dama doon jooy sax man lii man da lii gis ma ko gis nga xam ni moom fa mu ŋaañ fa mu xaañ loolu man sama xol bi dafa mujj tàng ma naan teemaa xeex ak moom may kii mu naan tarixa ku ko fi indi nangam tarixa nangam wax wax wax mu ne ko waaw a a a a a a yat duquuna walam yasduq wasilatuna jeex na jeex na jeex na diw laa gën a gëm mooy sama yaakaar xelam doy na ma xam-xamam doy na ma meloom doy na ma wóoroo wóoram doy na ma wóoloom doy na ma baaxam doy na ma nga ñëw ba ci kanamam wax ko ko mu ni la aha nga ni ko am mu ni la kon nag mbaxane mii nga sol day mbaxane mu xonq la nga dem ba ca wetu marché ba dajeeg koo xam ni amul sax lu mu reer lée yow de sa mbaxane mi dafa wert nga daal di wàññi ko ci ngàmb say rangoñ ñëw ci ka nga wóolu ka nga bëgg ka nga naw xam-xam ak xelam naan ko man de te yanduwuma lekkuma sax ndax dama dem ba ca marché ba daje benn dof mu ni ma soo mbaxane mi dafa wex te yow dag ma ni woon dafa xonq lii nite la wala du ak nite mu jeex mu jeex mu jeex tax ah moo tax coono yëpp foofu la jóg waaw yow yi nga waxoon yëpp weddil nga ko sa bopp weddil nga ko sa bopp waaw ba moo tax ngëm bu tuddul mbooloo ngëm bu tuddul mbooloo dikkagul waaw moo tax ngëm bu tuddul mbooloo dikkagul mbooloo it mënul tudd mbooloo te kilifa amul ngëm mënul tudd ngëm te mbooloo dikkul mbooloo mënul dikk te kilifa amul kilifa lan lay jëriñ lu dul wax ñëpp dikk ku fàtte ka ca des fàttali weddi amatul fa in tanazaatum fi shay farudduuhu ila allahi wa rasul mu jeex takk kenn ki fàtt te junni fàttaliku fàtteetul kenn ki fàtte te junni fàttaliku kooku fàtteetul moo tax mbooloom jullit yonent bi réyal ko ndax bu dul kenn kaca des du dem bu dul kenn kaca des du dem moo tax kenn du ni sama ilimaani jàkk ji doyuma kenn du ko wax ndax ñi ma doy a tax aha ñi ma doy a tax la ñuy bañ lëf dox sa digganteeg ñoom saafara bu jur jàngoro lay doon bu ko wax mukk bu ko wax mukk tax ci yoon ñu daganalal la ilimaan di génn ca jàkka ja dajeek yow ca kër jàngoro ngeen jamaale fa mu jam la noonoo nekk sa digganteeg moom ngeen dellu si ca jàkka ja sa merma na des ca buntu jàkka ja waaw waaw ndax jàmmi mbooloo mi moo ëpp doole sa rancune ba ca kër jàngax ba waaw aha pexe amul wata Sénégal kenn mësu fi dégg buur sangam boppam dafa wëlbatiku ci ba buur di am xanaa bu paasee ba yeneeni jamono laaj waxtaan lañu koy wax waaye jamono ba muy dund buur boppam wëlbatiku na kenn du ko dégg lu tax bu ñu koy tudd mbooloo mi di tas te feeg ñu di ko nëbb ñu ko mën a doxala la ngi yenn xeeti yenn xeeti sañ naa ko yeeg yenn xeeti démocratie yeeg lu mat a ndànku la waaw dof xaju ci waaw dof xaju ci lu ci ne nit a ko mën a doxal rek mu jaar yoon waaye bu ci dof duggee def musiba fala wa rabbika la yuminuun fala wa rabbika la yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima yàlla daan na wax yonent bi ni ko nit ñi seen ngëm maa ngi koy seete ci li nga tëral bu bu ñu ko nangoo rek mën a gëm nañu bu ñu ko nanguwul nag lu ñu ma wuyu wuyu nangootuma lu ñu ma wuyu wuyu la wax nangootuma lu ma ta bàyyi xel la te it mel na ni la mu ca teg yàlla nee na ñaar woyoful te nee na ci ngëm jaadu na ma wax ko ñu def ko mag mu ñàkkul dara jotu ko mu xëy ñu ni ko xarul nee na woyoful nee na borom kër bu soxnaam di préparé añ bi doom yi di bëri ci ëtt bi ma ni ko jaareel ci pot bi dem réer te pour dellu ci koo dee ñu jullam nee na woyoful nee na bu ci ne nag ngëm jar na ko tane bu ma leen ko waxoon ñu def ko la kaana xayran lahum la kaana xayran lahum wa ashadda tathbitan wa idan la aataynahum min ladunna ajran azima wa la hadaynahum siratan mustaqima waaw aha nee na àndu jabar àndu doom àndu wëllëre li moo neex yépp mën naa la ni bàyyi ko nga bàyyi ko ngir ngëm waaw ngir ngëm nee na boo ko nangoo ba nangu ko mën naa la won ki àndam dàq àndu jabar waaw ni mën naa la ko won ki àndam dàq àndu jabar ki àndam dàq àndu doom ki àndam dàq àndu àndu xarit ah nee na am na fu ma leen dajale na fu ma leen dajale ñu nga toog rek di wut kañu war a àndal te bu sa dogg tolloo nii nag danaa la bàyyi ak sa jabar bàyyi la ak say doom bàyyi la ak say xarit sa nga ànd ak ñoom muy bénéfice bu day na ñëy fa ulaika maa alladina anama allahu alayhim min annabiin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا waaw nee na xarit rek nga bëgg danaa la booleeg yonent mu di la wéttali ma boole la góor gu dëggu gu masula fen ci dundam mu di la wéttali ma boole la ku jaay bakkanam ngir sama jëmm mu di la wéttali ma boole la ku yiw ku mësula tuuti mukk mu di la wéttali nee na bu keroogee nga xam ni maa am wéttal waaw ah ah yoonu ngëm rek nee na it ngëm soo ca duggee wattul na pexe yiy joxe nit te jaarul yoon waaw wattul ma pexe yiy joxe nit te jaarul yoon wut nit li ngeen tudde wut nit wut nit wu am na wutin woo xam ne soo ko defee yàlla jëppi la yàlla xam ne yëpp ah xam ne yëpp nee na am na ci ñoo xam ni dama leen di baaxe ñu wuy si ma ci ngëm waaye itam rek bëgg moomaat nit ñi dana tax ngëm gi war a nekk xéewal ñoom ñu def ko fiir waaw te ngëm xéewal la du fiir ah bare na ku la na ah wartul de ah wartul de ah wartul de ah te dafay bañ nga rëcc ko rek waaye dara xewul ah dama bañ nga rëcc ko rek ndax yow la gën a wóolu ci yàlla ah yow la gën a wóolu ci yàlla te fekk na nag moom it mu ñu koy wax na fàttaliku ni ku jëkk yeewu rek ni sa morom tàngal la waaw waaw bañ nga rëccu ko rek ndax yow la gën a wóolu ci yàlla ah yow la gën a wóolu ci yàlla te fekk na nag moom it mu ñu koy wax na fàttaliku ni ku jëkk yeewu rek ni sa morom sangal la waaw ku jëkk yeewu rek ni sa morom sangal waaw waaw loolu rek la waaw ndax yow it jaaroon nga fa bu ñu la yërëmul woon doo ak ah jaaroon nga fa bu ñu la yërëmul woon doo ak ba ñu la yërëmee ba nga ak si yërëmal ñi ci def wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta muminan lasta muminan tabtaguuna arada alxayaati dunia ah fa inda allahi maganimu kasira kadalika kuntum min qabl famanna allahu alaykum kon nag fatabayanu ah yàlla nee na ràññee baax na fata bayyanu waaw ràññee baax na am na ñu ràññeewul ñàkk ràññee musiba la mooy koo jiitu ci mbir rek ni ko wattu ma kat nangam nangam ba ma ñëw ci daara ji nangam nangam ba ma ñëw ci daara ji nangam nangam te yow it ñu la jiite woon ci daara ji xamoon nañu ne mbabba daara nga mba te te wallaay wallaay wallaay wallaay